rapport à certaines déclarations dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw Samba eh, eh, déglu nga également cette conférence de presse du gouvernement euh, plusieurs ministres aujourd'hui yoo xam ne jàkkaarloo nañu ak askan wi pas mal de questions également ñëwaat nañu ci ban lecture nga ci def Euh, merci beaucoup Fatou Abdou euh, je l'avais oublié tout à l'heure donc euh, à ne donc mais co-débatteurs monsieur Thiam et monsieur Fall maa ngi baax a baax a baax a baax donc leen jox seen wàccuwaay euh, di jaale le département de Birkelane rawatina donc la commune de Mabo le village de Kër Hamadou nga xam ne ñoom ñoo ñàkk Tamsir Cissé dañoo euh, rayoon ko fii ci parcelle donc di jaale képp koo xam ne aussi ñàkk nga sa doom ci li nga xam ne moom moo am barke démb du ñu ci bari sax ils ont été tués par arme à feu parce que les qui sont là euh, les qui là euh, euh, que font les médecins. autopsie bi les autopsies sont la ok donc yëpp yor nañ ko. donc ñu ngi leen di jàll bu baax a baax di masawu les blessures leen masawu bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci kaso yi plus de quatre cent et quelques personnes ñu ngi leen di xool bu baax a baax ñoom itam di xool seen njaboot. Euh, en l'occurrence donc à sa tête le secrétaire général du parti PASTEF monsieur Bassirou Diomaye Faye nga xam ne donc moom bu ñu ko limee rek lim ne ñëpp ñoo xam ne yéen a ngi ci biir kaso bi ngir la cause noble donc de ça euh, euh, mon ami et frère Adama dama ko yërëm parce que li tax mu yërëm ko mooy ñoom dañuy def seen mbir ba pare ne ko demal def service après vente te après que loolu du sotti parce que Sénégal yi ndeysaan dañu lay xool après dañu lay yërëm sax parce que gis nañ ne kii mu ngi dem essayer de défendre l'indéfendable c'est la première fois du Sénégal jël gouvernement parce que ñoom yàgg nañ ko wax ñu noonu dañu ne woon dañu def rendez-vous du gouvernement avec le peuple def seen conférence de presse euh, tey bi ñu demee tey conférence de presse bi moom mu ngi nii toog mun lax ni ñaata ministre ñoo fa nekkoon xamul ñaata ministre ñoo fa nekkoon mënul laa wax ñaata ministre ñoo fa nekkoon mm-hmm. il a dit tout à l'heure ñeent ministre ñoo fa nekkoon juróom mm-hmm. non non non ñaata ministre ñoo fa nekkoon développé rek après non non non non non non non non non donc c' est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu am juróom-ñaari ministre juróom-ñaari ministre ñu taxaw ne dañuy jàkkaarloog askan bi pour wax ak ñoom li nga xam ne mooy soxla sénégalais yi ñoom bi ñu ñëwee dañoo def tentative de réponse donc à la presse internationale. gis nga li ñu doon ah, def tey mais li ñu def c'est pas interdit quand même war nañu wax ak askan wi dans soxla nañu yenn information yi quand même. malheureusement dañoo ñëw def hors sujet. Hmm. waaw tey bu des élèves que que j'avais donné un leen disserté leen du ma leen may sax zéro mais moins deux laa leen di may. Ah oui parce que xam nga lu tax tey lañu gis ay ministres yoo xam ne ñu ngi ñëw toog ministre des forces armées ministre de l' intérieur. Hmm. ministre de la justice ministre du commerce le premier ministre ministre de l' élevage et ministre des sports juróom-ñaari ministres ñëw toog juróom-ñaari ministres ñëw toog jël Sénégalais yi du début jusqu'à la fin li presse internationale développé moom lañ doon répondre. di jéem a justifier wu ñoom seen position amul waar ku ëmb sa sanqal ëmb sa sutura gis nga nous les pays africains là jusqu'à présent nous sommes dans l'impérialisme nous jusqu'à présent nous sommes dans la néocolonisation jusqu'à présent réew tubaab yi ñoom ñoo yore seen koom di ko investir fii nga xam ne mooy Sénégal et premier facteur d'investissement moom mooy l'apaisement du climat social donc bailleurs yi bi ñu gisee ne apaisement du climat social amul Sénégal ñoom ñu tirer la sonnette d'alarme tiré waat ko tiré waat ko depuis mars 2021 jusqu'en 2023 ñoo xam ne lii du sotti moo tax ñoom ñu téye seen loxo aujourd'hui où est le ministre du euh, euh, des finance nekkul Sénégal mu ngi à l'extérieur dem di lebi euh, barke démb gis nga euh, journal ñu ne on a eu cent dix milliards donc de la banque mondiale ñu ngi lebi parce que pourquoi ñuy lebi parce que les bailleurs jusqu'à présent pare nañ ci li nga xam ne mooy la confiance bi ñu accordé woon donc à ce pays là te lan moo ko waral parce que amatuñu climat apaisement du climat social parce que apaisement du climat social mooy premier facteur d' kon boo ko pertee amutoo li nga xam ne mooy gaz de de sécurité la et de garantie man je pensais que aujourd'hui su ma toogee gis leen ñoom ñu war a répondre à la presse internationale dama jàpp ne surga balaa ngaa tontu ki nga xam ne du sa njaatige tontu sa njaatige li ngeen leen di jiin vous êtes les premiers à se glorifier quand un député français wala bokk la France ou les États-Unis di di immiscé wu ci sunu ci sunu doxalinu réew dañuy wax stop yeneen njëkk ne voyez que ne même ñi nga xam ne ñu ngi biti réew sax ñi ngi wax ne ay dérive moom moo am Sénégal pour pourquoi aujourd'hui quand même l'État n'a pas le droit mu leeral Sénégalais yi mais également l'international surga jàmbur bu ñëwee sama tool di béy ci sama tool dama ko wax jëf parce que du sama surga kon boog su ñëwee sama waar fekk may booyal mu ñëw di ma ci jàpp dama ko wax ne jërëjëf mais sama surga bi ma jàpp fay weer bu dee kooku dafa war a ñëw wax ci samay soxla aujourd'hui man jàppoon naa ne bu ñu ñëwee dinañ wax ci jiw bi nous sommes dans dans la li ce n'est plus à l'approche de l'hivernage mais nous sommes dans l'hivernage taw na Kolda taw na Tamba taw na Ziguinchor heure bi dama foog ne dañ may wax ci jiw soo demee mbir Klanteer xam nga ñaat la ñuy joxe jiw kër gu nekk ñu ngi koy jox téeméeri kilo téeméeri kilo yooyu boo ko xoolee doo ci am sax juróomi kal juróomi kal mooy juróom fukki kilo kemb doo ko am ñaar fukki kilo kemb ak juróom doo ko am waxuñ ci aujourd'hui le paysan sénégalais est en train de mourir à petit feu parce que amul jiw amul intrant agricole malgré que ñoom jël nañ seen cent milliards def ko ci li nga xam ne mooy budget bi te budget boobu noonu tey boo demee ñoom seen bopp ñoom ñoo koy naan seen biir ñoo koy lekk seen biir béykatu café de Rome yi li Moustapha Cissé Lo doon wax ñoom ñoo koy lekkaat seen biir aujourd'hui nous sommes à la tabaski est-ce que yow de l'élevage était déglu ko discours bi jusqu'à la fin waxul sax lu jëm ci xar waxul sax lu jëm ci jiw kooku les les les les les besoins des sénégalais ne les intéressent même pas léeg-léeg moo lay won ne ñoom Sénégal ñoru leen mbiru Sénégal ñoru leen xam nga lan moo leen ñor mooy ñoom ni ñu def ba li nga xam ne jël nañ ko ci bailleurs yi nu muy giixee lekk nañ ko tu munta rees je prends un rapport le rapport donc de la Cour des comptes dégg nga ñu waxati ci et pourtant jusqu'à présent les gens en donc justice def ci yoonam

nga yaakaar ne ñi sénégalais yi ñor na leen kon man li ma gis fii c'est très wax naa la ko mooy que ni comme le quatrième pouvoir n'existe pas dans ce pays là parce que le quatrième pouvoir yi nga xam ne mooy euh, les maisons de presse au Sénégal le quatrième pouvoir n'existe plus ñi fi doon taxaw di jéem a lu jéem a taxaw mm-hmm. moom lañ tëj tey mooy Walfadjri tey fii seen kër gi nii Serigne Saliou mi fi nekkoon nga xam ne il est farouchement contre li nga xam ne noonu la état di doxale ana mu tey mu nga nungu siin ñaata journaliste ñoo nekk tey nungu siin ñoo xam ne dañ doon wax li nga xam ne mooy dëgg wal fajiri bi nga xam ne Macky Sall moom ci boppam moo ko waxoon moo taxoon fii ne Sidi Lamine bu soobee yàlla ñun dinañ jàkkaarloo ñi nga xam ne c'est des donc de la démocratie hmm. parce que ñun Sidi Lamine duñ donc comme le quatrième pouvoir n'existe pas donc au niveau national au niveau international le quatrième pouvoir existe génne li nga xam ne moom moo am ci biir réew mi teg ko ne ko dàng ne fang ñëpp di ko teg seen bët moo tax nag ñoom ñu tiit commencé ne dañuy rakkal alors euh, léegi ma jeexal fenn rapidement mhm. mais comment on peut parler donc aujourd'hui l'actualité sans parler donc des sujets d'actualité ñoom comme ñoom xam nañ alchimie bi ñu koy mën a defee sénégalais ñu ngi leen di xaar parce que sénégalais ñooy jënd tabaski sénégalais ñooy jënd jiw ñoom ñooy dem tool te loolu moo leen soxal très bi bëri na lu ñu fa wax euh, El ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbiru Ousmane Sonko le ci ci loolu la ñu wax euh, bu dee Ismaïla Madior Fall bi ko laaj mbiru Ousmane mu toll mu jàpp ne la décision est en train d'être rédigée buñ ko rédigé ba pare dañu yegg ci condamnation information lan la ñu mën a comprendre foofu lañ ci mën a leeralal. merci Fatou Abdou euh, li ma ci mën a wax mooy <coughs> d'abord sur la communication du boo ma ko permettre. bien sûr sur la communication du gouvernement. Mhm. dama jàpp ne gouvernement bi euh, bi ma ci delloo ay bribes dama jàpp ne peut-être il parle il donne une réponse à la communauté internationale. peut-être man laa ci jàpp parce que nit ki mënoo seetal sa bopp opinion publique tey dañoo takkal état bi. mais dafa am ci manifestation yi gis nañ ci ñoo xam ne duñ bokkuñ ci force l'ordre yi gis nañ aussi ay vidéos boo xoolee sax euh, premier ministre xaw na ko projet ne affaire yi dafa am ay montage et techniquement ils peuvent expliquer ça bon boo xoolee aussi Ismaïla Madior Fall aussi même